dañoo amoon daje bu mag ñu koy wax comité régional de développement boo xam ne bii dañ ko def mu topp li nga xam ne moom la président Macky Sall digle mooy que ne askan wi soo bëggee xam seeni soxla euh, xam nan nga ci taxawee euh, da ngay dem déglu leen kon bokk euh, moom ni mu koy defee ci conseil des ministres délocalisé ñun tamit bi ñu dénkee ministère bi ñu commencé ci at mi nag li ñuy wax ay CRD comité régional de développement boo xam ne bii ñaareel bi mooy fii ci région de Thiès lañ ko defee li ñu ci jublu mooy wax ak askan wi wax leen li nga xam ne moom la ñu jotoo dafegum ci mbirum ndox ci mbirum assainissement ak déglu leen ñoom tamit euh, lan mooy seeni bëgg-bëgg lan mooy seeni i ay réclamation euh, lan mooy seeni soxla ñun tamit ñu wax leen li nga xam ne moom la ñu am comme euh, yéene pour def ko ci région bi euh, suñu méngalee nag yéene bi ñu am ñun ak ñoom seeni bëgg-bëgg loolu daf ñuy may ñun ñu suñu programme ñu gën koo taxawal mu gën a méngoo ak ñoom euh, li nga xam ne nag moo am mooy ci li ñu wax ñoom am na ci loo xam ne ci budget 2020 bi mi ngi ci déjà danañ ko def mooy forage yi nga xam ne dañoo nekk en panne directeur général lu OFOR nee na leen forage yooyu euh, def nañu appel d'offre yi ñaar fukki fan ak juróom ci mois de février ci la ñuy def euh, euh, ci la ñuy xam entreprise bu nekk njëg ban la def su fekkee ne daal amul benn xëccoo ci biir entreprise yi li ñuy wax recours au niveau de l'ARMP ci weer bi ci topp normalement liggéey bi war naa mën a commencer pour ñu defaraat forage yooyu yeneen yi nag soxla yoo xam ne yi moom à long terme la dañ ko def suñu programme pour seet nañ lañ koy régler te am na ci yax sax yoo xam ne yii déjà gouvernement bi taxaw na pour régler ko maanaam mbirum assainissement Tivaouane liggéey bi fekk mois de juillet normalement dana pare wax nañ fi tamit Euh, ndox yu manqué fois ci ay booru mbuur wala dara wala euh, ndox mi nga xam ne mooy jóge ci biir suuf si forage yi niñ koy manqué xëj na dana am lu muy jural ëllëg euh, région de Thiès foofu dalal nañ seen xel ne leen usine Kër Momar Sarr numéro trois bi ñuy def mu war a indi loo xam ne lii dana toll ci ñaar téeméeri junni ci mètre cube ay ndox mu ñaar téeméeri million ci ay litres ndox. Euh, yëpp duñ ko jël yóbbu Dakar daf ci am loo xam ne lii dañ ko jagleel fii Thiès ak agglomération bi beneen bi dem Mbour te waa Mbour yi gis nañ ni tuyaux yooyu déjà suñu aw ci route nationale bi gis nañ ne ñu ngi koy teg loolu mooy tax ndox mi kenn dootu ko xañ euh, manque yëpp ci forage yi te dana am saafara bu muy indi ci euh, ni ñuy surexploitation ndox mi nga xam ne moo nekk ci ci biir suuf si. waaw loolu aussi waxtaan nañ ci parce que. maa ngi doon xalaat bi may ñëw fii même xalaatoon naa ne récrimination yi ak euh, jooytu bi ci Aquatech dana gën a bari ah, gis nañ ne am na euh, mais lu jiitu loolu sax ministère bi amoon na ñetti réunion yoo xam ne def na ko ak euh, Aquatech benn bi ci ñoom sax Aquatech ay ay groupement la boo xam ne bii ay canadiens ñoo ci nekk ak ay sénégalais ñoo bokk pour pour di gérer ndox mi ci région de Thiès ak Diourbel bi nga xamee ne joytu yooyu am na. oo nañ leen ah, ñoom jël nañu ay engagement yoo xam ni nee nañ danañ ko def ci ci ci fay nit ñi ci délai ci toppatoo affaire u électricité bi ah, ak toppatoo ah, forage yi su paane ñu koy def wala ñu koy defaraat ci lu gaaw loolu ñi ngi leen di ñi ngi leen di ñi ñi ngi leen di surveiller ci engagement yooyu ñu def wax naa leen ne diir bi su jotee su fekkee ne engagement yi respecté nañ ko xaarit ñu continuer su fekkee ne ñoom gis nañ ne mënuñoo respecter engagement yi su boobaa gouvernement bi. nous avons entamé des séries de CRD dont le deuxième euh, s'est tenu aujourd'hui ici au niveau de la région de Thiès comité régional de développement qui entre dans le cadre de la gouvernance de proximité voulue par le président Macky Sall et qu'il a institué lui-même par des conseils des ministres délocalisés. Ce CRD avait pour objet de dresser les investissements qui ont été effectués dans le secteur de l'eau et de l'assainissement dans la région de Thiès, de recueillir les préoccupations, les doléances, les attentes des populations et d'informer les populations sur les investissements qui sont prévus et en même temps de nous fonder sur ces demandes des populations pour mieux affiner euh, les prévisions d'investissement que nous avons dans les années à venir. Nous pouvons constater que des investissements importants ont été réalisés que ce soit dans le sous-secteur de l'hydraulique ou de l'assainissement dans la région de Thiès, qui ont permis de soulager beaucoup de localités en ce qui concerne l'alimentation en eau, notamment la commune de Thiès. Et dans le secteur de l'assainissement aussi, des investissements importants sont en cours, notamment les travaux d'assainissement de la ville de, de Tuawan qui doivent être euh, Euh, achevé au mois de juillet 2020. Et dans le domaine de l'assainissement de, de l'hydraulique rurale, que on a eu beaucoup de récriminations par rapport à la réforme qui est en cours, notamment au niveau de la société Aquatech, qui connaît des difficultés pour euh, prendre en charge les sites qui lui ont été alloués. Mais nous avons indiqué que pour cette société, sans attendre même ce comité régional de développement Nous avons eu des séances de travail et des engagements ont été pris. Et le ministère va évaluer ces engagements pour les décisions euh, qui, qui, qui, sera utile de prendre. En ce qui concerne les, les, les perspectives, euh, le, la présentation a montré que les nappes de Thiès étaient surexploitées, notamment les nap euh, pour euh, les besoins de l'alimentation en eau de Thiès. de Dakar et que nous avons rassuré les populations en leur disant que le projet de Cœur Montmartre numéro 3 avait pour objet de euh, faire des piquages sur euh, l'ALG numéro 3 qui est en train d'être posé et que les populations même je crois de Dias et tout ça se rendent compte qu'il y a des tuyaux actuellement qui sont en train d'être posés et cette euh, alimentation de Thiès et de Mbour en partie à, à partir de, du lac de Guerre va permettre de soulager l'exploitation des nappes souterraines et à terme ces forages seront déconnectés pour que euh, les villes de les, les, les agglomérations de Thiès et de Mbour puissent bénéficier aussi du transfert d'eau. Sur les forages qui sont à l'arrêt, le directeur général de l'OFOR a indiqué que tous ces, pour ces forages, les appels d'offres ont été lancés sur le budget 2020. Les dépouillements des offres euh, euh auront lieu le 25 février. Et en principe, s'il n'y pas de au niveau de l'appel d'offres, euh, les travaux pourront démarrer dans le mois qui suit le dépouillement des offres. Oui, j'en ai parlé. J'ai parlé du cadre aquatique de façon générale en disant que nous avons eu beaucoup des populations concernant Aquatech. Face à ces récriminations, nous avions convoqué une première réunion d'abord euh, pour leur demander ce qu'il fallait, pour leur exiger ce qu'il fallait faire. Une deuxième réunion avec toutes les autorités administratives, les autorités territoriales. Aquatec a pris un certain nombre d'engagements. Ces engagements sont datés sur une feuille. D'ici, nous allons évaluer et prendre les, les mesures qui, qui, qui s'imposent. Je pense que quelquefois, le problème qui s'est posé, c'est que les, les polices d'abonnement Sénélec étaient au nom des ASUFOR. Et ces polices n'ont pas encore été transférées. Pour, pour certains, hein, ces polices n'ont pas été transférées à Aquatec. Et quelquefois, les ASUFOR recevaient les factures, mais ne les donnaient pas dans les délais euh, à, à Aquatec qui était chargé du paiement. Mais ce sont des problèmes qui sont en train d'être réglés en ce qui concerne le paiement des factures d'électricité.